en temps réel www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Sénégal nuyu nañu leen samedi le 13 février Blabla Buzz ñu dajewaat kim bi tim bi ñëwaat Vito Gaye pour vous servir bijou ni nga ko bëggee <laughs> noonu laa la koy waxalee Vito pour vous servir ñu ngi waat fii ñoo joxante woon rendez-vous nee nañ leen chaque samedi ñu dajee fii tim bi ñëw euh, Kia mu ngi fii budget mu ngi fii xale yaa ngi fii sañse ba benn ni télé tey nag euh, ñu ngi ci muddu 14 février muddu Saint-Valentin euh, nit ñi di raconter seen histoire d'amour ñii di bëggante ñii on parle aujourd'hui des amoureux de l'amour mais n'empêche on va parler d'actualité dinañu wax li xew ci réew mi mais dinañu leen ko tojol à notre façon mais avant loolu dañuy dem juste wax ci li lëmbe fii réew mi muy minute corona li nga xamante ne feebar boobu sonnal nit ñi lëmbe fii ah corona kañ ngay dem sa yoon corona chaque samedi ma wax ak yow corona yedd naa la nga bañ corona ah, taggal naa la say maam nga bañ ah, corona léegi yow lan nga bëgg dese yaa ngi gën a bëri ah, nit ñaa ngi gën a jaaxle waaye juste di wax nit ñi. nañu jël mesure préventive yi euh, sàlloog gest barrière yi di takk masque yi di utiliser gel ba pare di respecter distanciation sociale comme niñ koy defee ci plateau bi nga xam ne Kia day nekk un mètre man ma nekk un mètre xale yi ni ma leen bëggee ñu may soree nii nga xam ne Kia rek euh, nga xam ne <laughs> corona rek euh, mën lii am na nag benn video vidéo boobu nga xam ne chaque samedi <laughs> ma tegal leen ko tegal daal leen ko samedi bi passé gaa ñu doyaluñ ji kon samedi bi bu ñëwaatee tab dama koy dàbbali Euh, tegal ñu vidéo bi bijou ñu xool euh, parce que ak nu mun ti demee tamit euh, feebar bi du tax gaa ñi di inspiré wu feebar bi du tax aussi gaa ñi di am joie de vivre feebar bi du tax tamit gaa ñi di apaiser nit ñi looloo tax vidéo bi tam ñu leen koy dugal pour boo leen ko seetaanee tamit mu leen di apaiser yéen it bijou dugalal ñu vidéo bi regardez vous êtes sur Sénégal set lépp jàpp bàyyi leen joxo loxo yi. pandémie mi pandémie bi. laver les mains poser les masques. laver les mains poser les masques. il faut laver les mains poser les masques. lépp lépp jàpp bàyyi leen joxo loxo yi. pandémie mi pandémie bi. laver les mains poser les masques. laver les mains poser les masques. il faut laver les mains poser les masques. lépp lépp jàpp bàyyi leen joxo loxo yi. pandémie mi pandémie bi. bàyyi leen joxe loxo yi bàyyi leen joxe loxo yi laver les mains porter les masques laver les mains porter loolu la ko gaa ji waxee mooy c'est juste laver les mains et porter vos nag dañ koy sol normalement mu muur sa bakkan muur sa gémmiñ doo ko lonk fii doo ko lonk fii doo ko dugal sa poche doo ko kii te ngeen di renouveler tamit seen masque yi bàyyi masque ba mu dand tilim di yaakaar naa ne mu jural la feebar sax mooy mooy mooy mooy gën a normal te yaakaar naa ne faju ba jëlee ci jàngoro aussi yàlla nañ ci yàlla musal xale yaa ngi nii nag toog kii yaa ngi fii bàjjee na ngi fii noir blanc ak. Euh, noir bleu <laughs> xale yi civilisé ay waay ay waay balaa balaa bës gi émission bi tey ñu ko def deux heures de temps wala trois heures cinq wala wala quatre heures neuf minutes <laughs> yii duma ci doyal kii yaa Guèye Ñàmbeeg Maar sama rakk ji maa ngi lay nuyu borom pikin borom Mariste. fay naa la. nuyu ci loo <laughs> maa ngi nii tax nga ba yàqu de. Ah, ah, tey moom tey moom da nga engagé télé bi. ca capp cappal ko rek maa <laughs> ay ca doxalal. <laughs> asalaamaaleykum mbokk nuyu nañu képp koo xamante ne à chaque fois ñu ngi seetaan bla bla buzz euh, si gis set bopp yi ñu ngi gis commentaire yi ñu ngi gis tout donc euh, naan nag à chaque fois ñu bëgg lu leen neex ba tax na ba ñu dem gëstul leen li ngeen xamante ne moom ngeen di soxla ngeen ànd ceeg ñetti xale yi nga xam ne tarkaal la fi réew mi toll. ah dëgg neexul dañoo xaw a teg tànk de. waaw dëgg neexul dëgg neexul te te te li ci kanam sax rawali bët. Mhm. instant bi juste on apprend les choses dañuy def. Euh, ñu ngi xool terrain bi daal terrain bi lu muy saf. waaw waaye <laughs> nañ ñu ñaaral gudd fan ak wér-gu-yaram bàjjan. ah jaxate ka ba yéri sama waa ji <laughs> ba nga ñëwee ba tey ba nga ba nga ba nga toogee ba tey ah. changé woo. <laughs> ñëw nga bii passé benn yoon rek nga def réew bi ne bàjjen bàjjen bàjjen ma ne bàjjenu xale yaa ngi nii waaye bu fi fekkee kiyaa nag <laughs> kiyaa teg ko ci yoon nii rek la mën a mel bu melul nii tooñ na nga def nga laal sa fes bëla bëla bëla bi <laughs> noo def maa ngi fi maa ngi sant yàlla bu baax waaw di nuyu ñi ma bokk plateau bi Kia Vito di nuyu képp nga xamante nii rek yaa ngi bëggee Bla Bla Buzz leen wax ne leen fii lay xewee chaque samedi incha allah rabbi waa commentaire yokk leen ko mhm. ndax dañoo xew nag. nañ partagé tamit. waaw dinañ partagé bu baax partagé émission bi. voilà koy nañ koy partagé. ni ko waa ñi daan waxee partagé leen. partagé leen vidéo yi partagé leen vidéo yi tey nag on sans sans tarder dañuy wax juste ci euh, message. parce mhm. que réew mi dafa xaw a yëngu fan yi mhm. euh, coowal politique bi coowal yeneen ak yeneen Sénégal taamu nañ ci euh, yeneen yu dut xiiroog ngaayoo xëccoo parce que jàmm ñun daf ñoo yàgg a mm-hmm. Mm-hmm. te yàlla nañu gën a sonnal waaye yooyu boo amee aussi da ciy baax kilifa diine yi génn wax àddu wax ak population bi te kilifa diine tàmm nañ ci comme muy chrétien que muy jullit que muy mm-hmm. beneen mm-hmm. diine parce que symbiose boobu ñun la ñu tàmm fii Sénégal mm-hmm. Sénégal ngay gis waa ji mu ne euh, catholique buy dem église dajeeg jullit jullit gi ne ko ñaanaaleel ma wala jullit buy dem jumaa dajeeg mbokk chrétien mu ne ko saa ñaanal loolu ñu nekk ko am léegi nag ci semaine yi il y trois jours ba coow li yëngoo euh, nit ñi nekk sànnante xeer yi yëpp moom dafa def benn sortie en tant que kilifa diine artu nit ñi wax leen ay message pour dalal nit ñi te c'est bon tamit yooyu geste yooyu ñu koy encourager nga tegal ñu ko Bijou euh, avec la complicité de Bijou et Abdou ngeen tegal ñu vidéo boobu regardez population du Sénégal, chers compatriotes, l'histoire retiendra qu'une femme on va le Sénégal. Qu'on soit servi d'une femme pour détruire le Sénégal. Je, j'interpelle tout ce que le Sénégal appelle communément les guides ou chefs religieux. les khalifes généraux qui, pour un rien euh, ou un détail, toute la classe politique, la société civile et le mouvement syndical se ruent pour aller donner des explications à ces gens. au bord d'une Le Sénégal est au bord d'une guerre civile. Depuis trois jours, j'ai écouté la jeunesse du peuple sénégalais se rivaliser d'ardeur dans des commentaires au travers des réseaux sociaux. Mais aucune voix d'une autorité, de quelque bord que ce soit, que ce soit des ONG, intervenant et spécialisé des droits de l'homme. De la société civile, dans son ensemble, les mouvements des activistes résidant au Sénégal, vous êtes, vous êtes sur Sénégal 7 c'était monseigneur Benjamin Ndiaye mi nga xamante ne dafa génn wax ak population bi yaakaar naa ne bàjjen yi da ciy baax bu euh, coow amee ñoom mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa diine génn wax ak euh, seen ñi nga xam ne ñoom lañ jiite. Mm-hmm. yii da ciy baax j'espère. Mm-hmm. waaw euh, parce que loolu tamit dafay tax même su fekkoon ne réglé wuñu sax après dañuy réglé parce que Vito ku nekk am na ko rus. la. bu nekk am na kan ki nga rus. Mhm. faaw kilifa wax parce que li ma doon wax rek chaque jour moom laay waxaat. Mhm. ñu ngi ci dëkk diine ci dëkk lislaam mhm. muy catholique bi muy jullit bi ñëpp benn lañ. Mhm. macha allah parce que Sénégal loolu lañ xam. Mhm. kon su coo amee wala histoire wala xiiroo wala ŋaayoo. Mhm. kon faaw gars yi génn wax parce que ñu ngi ko tàmmal. après ñu réglé lépp. macha allah ñoom tamit ñuy génn bu ñu paree ci rafetlu geste boobu noonu monseigneur Benjamin Ndiaye def maa ngi doon juum sànq sax naan euh, monseigneur Théodore Adrien waaye ñoom ñëpp ci euh, même mood bi la wala même nit ñi te li leen taxoon a même chose la ba tey. Euh, ñu demaat tamit ci beneen <laughs> actualité bi nga xam ne démb ci guddi la xew foofu ci benn émission bu ñuy woowee jàkkaarloo ci waa TFM ñuy profité di nuyu waa plateau boobu yëpp seen benn kilifa sax laay wax Fou malaat mi mi ñu gën a xamee ci noowu Malal Taal génn euh, wala sax moom bi xam nga dafa tàmm def ay show moom ci ci ci euh, plateau bi bu nit ñi waxee moom bu waxee nit ñi toj waaye démb li ma wax nag ñëpp a ko reprendre ci saa si tout le monde l'a repris ngay gis parole Fou Malade ci euh, réseaux sociaux yi yaakaar naa ne xale yi heure yooyu fekkoon na ngeen di nelaw yéen du ngeen di seetaan <laughs> jàkkaarloog yooyu heure yooyu moom bu ma leen gisee ci ligne bi dina xeex ak yéen laay def raag raag ak yéen fexe leen ba bu leen dindee ci ligne bi heure boobu xale day dalaw heure boobu boobu heure bu baax bi la pour ñun <laughs> ñun mag ñi tegal ñu tegal ñu Fou Malade xale yi déglu ko euh, bijou voilà. xam nga daanu parce que daanu leneen ngay tal. xam non non non. waaw rek xam nga daanu non daanu sax munul ànd ak pis yor pistolet. parce que daanu leneen ngay tal. xam non non non. waaw rek xam nga daanu non daanu sax munul ànd ak pis yor parce que daanu leneen ngay tal. xam nga daanu non daanu sax munul ànd ak piste. dem na <laughs> dem na ci leneen fu malade gi di xale yaa ngi reetaan mais mais mais il il fait juste du fou malade à chaque fois il fait du fou malade. kii mhm. euh, ah fou malade sa xalaat. <laughs> ah ah xam naa ni daal en tout cas. Mhm. Mm, Euh, soo nekkee kilifa. Mhm. nekk ci ci ci ci média di wax. Mhm. loo xam ne xale yi dañ lay seetaan mag yi dañ lay seetaan parce que jàkkaarloo dafa nekk émission boo xamante ne. Mhm. ñëpp dañuy toog di ko xaar. kon donc euh, am na yenn wax yoo xam ne suñuy raq ñu ngi koy seetaan suñu doom ñu ngi koy seetaan. rafetlu ma ko. ndax foo ma laat bu waxee ni que ay euh, boo man buñ ma jox naat buñ ma jox taanee rek. ma daanu. loolu en fait du waxam. Mhm. parce que kilifa da ngay xam ni kilifa nga. Mhm. bu la nit ñi bëggee da setaan nga xam ko. Mhm. mais du tamit da ngay ci télé rek. lu la neex wax lu la neex def. parce que fii dëkk bi tamit am na yoon. te en plus tamit nit sooy def dara war nga xalaat ay xale. dañu war a xoolaat euh, vidéo li ñuy def ci télé yi ak li ñuy wax ci télé yi. parce que dafa nekk loo xam ne soo ko xasee wax. c' fini. nit ñi dañ koy commencé di reprendre. après yow yow yaay jékki def nga ko ba pare. Mhm. c'est mhm. c'est déjà fait. Mhm. kon donc dañuy xool li ñu def fu malaat lii nga def. du dëgg du yoon te teguloo ko fenn. ñoom bu defee lii sax ñun lu ñu war a def. ah c'est ça c'est ça. yow yaa ngi ko ci télé. xale di la seetaan ma ngi di la seetaan ngay wax loo xam ne c'est indécent. yamu ci loolu ko sax mi ngi naan booy daamu. Mm. su nga joxoon pisale. pisale <laughs> doo ko tal. xale yi seetaan xamuñu luy daan. Mm-hmm. ñun sax xamuñu ko. <laughs> waaw donc kon nag. Hmm? Mm-hmm. del xool fu mu laat li ngay wax bu baax a baax. parce que mm-hmm. population Sénégal ñoo lay seetaan te donc ku mag nga. ñun ba ngay woy ñun sax ah, ay tuut tànk lañ. kon donc y a des choses yoo xamante ne ça se dit pas. c'est vrai c'était les de Kia toujours égal à elle léegi sax la ñuy ñëw jàll ci moom jàll ci Kia parce que jamono ji. wala jours yi passé yaakaar naa ne ku wax ci leneen lu dul le président wala Ousmane laay wax wala président waaye bàyyi ma jox ko cër bi ko <laughs> bi cër bi ko yàlla jox rek le euh. président Ousmane Sonko yaakaar naa ne ku wax ci leneen te waxoo ci moom nit ñi duñ la sax xoromal mhm. parce que il fait l'actualité mhm. moom ak yiñ ko tuumaal moom ak ay sortiwam président tout Ousmane Sonko toujours égal à lui-même mais nag tey Kia dafa leen defal jàngat ci Ousmane Sonko moomu. Mhm. fu mu jógee fu mu yegg si euh, portrait u Ousmane Sonko tey ñi xamutoon yaakaar naa ne ku ko xamul sax bëriwul ci ci ci ci réew mi. Mhm. ñi xamul Ousmane Sonko yaakaar naa ne bëriwul ci réew mi. Mhm. waaye ñi ko xamutoon tey dinañ ko gën a xam. ñi ñi ko xamutoon dinañ ko xam ñi ko xamoon tamit tey dinañ ko gën a xam eh, c'est c'était c'est c'est travail yu Kia la Kia moo leen defar loolu. Kia. waxal ak gaañ yi ci Ousmane. <laughs> ah ñu ngi koy nuyu euh, président Ousmane Sonko. ñu ngi mhm. koy nuyu bu baax a baax ak waa Pastef yëpp ak waa Pastef. ñi nga mhm. xamante ne ñoo ànd ak moom ak ñi nga xamante ne tamit moom la ñuy <laughs> xeexal. donc Sonko nag. mi ngi mhm. juddu le 15 juillet. 1974 maanaam mi ngi am 46 ans. 46. voilà 46 ah, ans. mi ngi juddoo fi nga xam ne mooy Kees. nitu Kees la. <laughs> waaw ñu su kees la. waaw Ousmane Ousmane dafa xam ne Ousmane. Ah. ak Idrissa Seck ñoo bokk fi ñu fi ñu juddoo bokk ñu <laughs> ah, gis-gis kii nii la jaar kii jaar nii. <laughs> loolu du sax nit. ak Talla Sylla Talla Sylla. Ah, ak ma ñu ak ma ñu Kombe. ak Ngay. ak Sané. xamoo fi du yëpp foofu leneen lay lijjanti. Ah, Abdou suñu mënee am photo Sonko bi. waaw dugalal na la ko sànq demee am mhm. donc euh, moom tamit mi ngi nekk li nga xam ne moom mooy président parti bi nga xamante ne moom mooy Pastef. Mhm. donc boo xe boo seetloo sax ci coow li. Mhm. ñoom ñoo nekk di euh, di wax ak di def lépp. mais Ousmane Sonko lu ci bëri dafa toog kalu fi mu kalu. donc mu ngi jàngee fi nga xam ne moom mooy université Gaston Berger. Gaston Berger. voilà mm. donc euh, moom mu mm. ngi euh, mi ngi dugg assemblée mi ngi mi ngi nekk député 2017 mm-hmm. mm-hmm. ci la nekk député mm-hmm. donc 2019 nag ci la ci la déposé candidat pour jël réew mi mais nag mm. ba Macky ba ba ba président nekkee première moom moo nekkoon deuxième moo ci toppoon te gis nañ ñu troisième troisième moo nekkoon troisième idée nekkoon mbokkam mi waa waa Thiès la ba léegi idée deuxième moom troisième ay ca donc euh, gis nañu ko ni Sonko moom mi ngi politique Sénégal Sénégal mais euh, lu ci bëri bëri bëri ñi nekk extérieur ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Sonko. waa diaspora bi waaw waa diaspora mhm. gis nañ que ni aussi Sonko euh, maanaam ibaadu lañ ko mën a tuddee. Mhm. ibaadu la mhm. parce que gis nañu soxnaam dafay dafay voilé wu. te euh, ñu ngi doon dégg ci ay kàddoom avant mu doon wax ni que ni mu su jëlee réew mi dañuy bàyyi ay xeesal ak ay ibaadu ak ñoom seen. donc majeure partie jeunes yi ne kon ñoom du ñu voté Sonko looloo indi woon 2019 bi. Sonko jëlu woon réew mi Euh, après ci par la suite ci lañ commencé di génne vie am parce que mm. Sénégal moom boo xasee dugg ci dara rek nañ la lañ battu dugg ci sa vie ba mm-hmm. jéem a xam lu bëri ci sa vie mm-hmm. donc nag mu nekk koo xamante ne tamit day bañ bañkat la mm-hmm. waaye tamit eston bi moom boo gisee ay sorteem daana jëkk a wax ni que ni am na ñu nekk sama kaw te ñu nekk sama kaw man du leen may dara mais dañu dafa mel ni que ni nekk nañ ci kawam ba eston bi am na loo xamante ne moom mi ngi koy mu ngi koy gis. te mhm. loolu waxoon na ko avant ñu koy gis. dëgg la donc euh, ñu naan Sonko li mooy euh, li nga xamante ne moom la ñu woon ci moom. Mhm. voilà léegi dégg nañ nag li tax euh, jamono ji parce que Sonko il a longtemps fait parler de lui. Mhm. yaakaar naa ne chaque jour moom chaque jour bu génnee gën. waaye problème bi nag defal nga ci gëstu tamit. moom ak li xew. lan moo xew exactement mhm. tamit. problème bi moom dafa mhm. ne dafa am feebaru ndigg. Mhm. donc feebar boobu da koy da koy daaneel tout le temps saa yu ko daaneelee nag day dem wuti ku te euh, nit ku am jàngoroom it bu sañ wax sañ naa wax it jàngoroom. donc dafa demoon ci foofu pour mancé wu parce que salle de massage lañu wax. mu dem pour mancé wu. ba mu demee pour mancé wu nag jékki saay euh, ki nga xam ne mooy aji saar. ne da koo ba mu ne nag da am na keneen koo xamante ne ci salle massage bi fa lay liggéeyee. Mhm. moom nee na moom ak Adji Sarr ñoo demoon ci salle massage bi. ba ñu mhm. nekkee foofu jékki saay Adji xaw koo dàq mu génn. Mhm. mais moom après dégg na Adji Sarr di wax téléphone kooku naan ndax diw. daanu na. Mm. donc euh, moom mën na jàpp ne ci gis-gis bi. Mm-hmm. ah que ni loolu tuuma loo xam ne dañ koo teg ci kaw Ousmane sonk la. Mm-hmm. gis nañ tamit benn tante yi Adji Sarr bu génn. Mm-hmm. mu ne Adji Sarr dafa nekk xale boo xamante ne dafa wow bët. day faral di dem. ñoom duñ ko gis. te nekk na xale boo xamante ne teewul maanaam. ana bi day jël ana njaay bi rek di ko joxe moo tax ñoom mënuñ mënuñ juboo ak Adji Sarr kon donc ki nga xamante ne ay parents moo yëkkati kàddu wax ko kon mm-hmm. yaakaar naa ne kooku kenn mënu ko miimal mm-hmm. donc dafa nekk loo xamante ne tuuma la mm-hmm. dëgg la am du dëgg yàlla moo ko xam waaye tamit ñu ngi ne ci enquête yi te nee nañu am na loo xamante ne gis nañ ko te xam nañ ni ah foofu la jóge ci euh, euh, mënu maa wax daal <laughs> kon daal en tout cas ma may may may lancer message bu dul sax Ousmane Sonko. Mhm. Euh, képp koo xam ne am nga soxna. Mhm. booy dem guddi massage. Mhm. àndal ak sa soxna. réew mi dafa tëre ji te kenn xamul nu réew mi tëddee. donc euh, te it boo nekkee tamit ndombal tànk am ñoo jiite da ngay xool sa ginnaaw ak sa kanam. ndax euh, nee nañu salle salle de massage boobu dafay ñëw faral tout le temps dafay nekk. kon donc foofu ñu weddi fa tuuma day nekk loo xam ne lu jafe la. dëgg la te Adji Sarr moom it wax na ni. moom Sonko def na ko ko ñeenti yoon. Mhm. kon donc def na ko ko ñeenti yoon pourquoi mu bàyyi ba mu mat ñeenti yoon. mu doog a dem ci yoon mhm. te Adji Sarr su wàccaan mu ni euh, càq-càq moo ko daan jëli. Mhm. mais jour bi affaire bi amee 4-4 moo ko jël ci buntu salon de massage loolu lañ jotoo am ci information yi. information bi de toute façon yëfu yëfu justice la ak euh, yëfu politique souvent mais ñu li ñu ci gënoon a mooy portrait bu ñu bu ñu defal ñu koy rafetlu bu baax te di la ci gërëm portrait bi ñu defal ci le président. président Ousmane Sonko ñu xam ne c'est un jeune moom nag gentleman la gentle gentleman la dégagement wu président Ousmane dafa. <laughs> dafa dafa doy waar. Ousmane Ousmane mu njaab rek <laughs> ba ko président oowee ci mbirum corona bi ba mu def costume ba jàpp gaa ñi tegal ko bàqu Balla Gaye bi jëgg jëgg na jëgg ca gi jar ron gi cat gin président di njaab ah, waaye président jantal na de. ah dëgg de jantal na de. dëgg dëgg neexul ah, waaye waaye. waaye eh, daal li ñu tey dem mais damaa bëgg ñu wax ci mbirum massage yi dinañ ci ñëw ci kanam ak mhm. euh, bàjjen mais ci tuuma yaakaar naa ne euh, kilifa ak tuuma nekk kilifa ak tuuma ñoo ànd te mënoo mhm. nekk kilifa tamit di bañ euh, tuuma. Mhm. waaw Vito mënoo nekk kilifa di bañ tuuma mais gis nga am tuuma yoo xamante ne buñ la ko tuumaalee en fait gis nga dañ ko ko tuumaal dëkk bi tànk. gis nañ li ñu yàq yépp ci dëkk bi. te mhm. loolu état moo koy fay. Mhm. donc ñuy bàyyi xel tamit que ni bu ñu meree. ñu mhm. utiliser suñu xel. te xam ne ko Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom. Euh, te yàlla moom. Mhm. moo xam li am ak li amul moo xam mhm. dëgg gi. Mhm. mais nit ki looy def defee ci ak sa xel. surtout boo nekkee kilifa moom man dama naan kilifa. day moytu di xam fu muy dugg. ak fa muy génn ak ña muy waxal. parce que dëkk bi dafa toj vitoo. miir yi nga bu ko wóolu. ka ngay waxal paaka ba lay rendi sa waaya koy jox la ko. paaka ba lay rendi sa waaya koy jox la ko parce que tey nan la ñuy def ba xam ni ko Ousmane Sonko mi ngi massage ci benn salon de massage. <laughs> donc nit da ngay moytu di xalaat sóoraale aussi say noonu. ci sunu réew maa ngi nii sunu réew maa ngi nii. réew mi kenn xamul réew lu bàjjante patak patak patak civilisé la boole ci wax ji <laughs> waaye. waaye yomb dama lenn ko sama jaaxal uh-huh. comme lu mm-hmm. kii yaa wax. Mm-hmm. mooy euh, dëgg la. Mm-hmm. coow li bari na wax ji bari na. mais damay bëgg chaque jour population bi ñuy def nànkam. parce kii yaa suñu yàqee tamit. Euh, dëkk bi wala ñu yàq tali bi mais suñu bopp la ñu yàqal suñu xaalis parce que da gis benn sénégalais bu ñëw non dëkk bi dafa met tali bi gis naa ma ñëkk di benn casque orange money mm-hmm. te ko si kaw tali bi yooyu yaa publicité waa orange money noonu si suñu télé non daal koy daal koy daal koy kii daal koy yàq tali bi tamit ñu taal ci ay pono mm-hmm. loolu dëgg du yoon xam nga li ma la wax mm-hmm. dëgg la nañu rafetaal affaire yi tamit nañu teey parce ku ci perse doom tey dina métti trop Ousmane Sonko dëgg la xam ni li ma la suñu président la suñu mm-hmm. suñu mm-hmm. suñu kii la. Mm-hmm. suñu frère la suñu papa la. ak yooyu mais tamit na ci sénégalais yi. même Adji Sarr tamit c'est une suñu sœur la mais sénégalais nañu def naan ko parce que xeex bi. ak taal pneu tamit suñu dëkk la yàq Vito. man loolu laa compte suñu dëkk la ñuy yàq. ba kiñ ci gaañ tiire ay bal plus plus bi ñu xaañ tamit. na rafet daal sunu dëgg la lay bañ franchement parce que lii dafa lii dafa ñaaw sunu la ji sunu dëkk la ñuy yàq li moo nekkoon image yu manifestation yi amoon buntu kër euh, le président Ousmane mais yenn yi nag si plus politique mm-hmm. ñun dañu koy bàyyi ak journalistes yi mm-hmm. ñoom dinañ ci def ay édition spéciale mm-hmm. euh, ci kanam incha allah de toute façon lii moom yaakaar naa ne ni ko Sénégal set toppee amul site internet bu ko toppee noonu fii ci Sénégal gaa ñi def nañ ci liggéey bu bu jéggi dayoo am na sax sunu bopp journaliste buñ ci waajoon a waajoon a toj. yéen a ngi seetaan vidéo journaliste boobu di daw. Mm-hmm. naan ñëpp daw nañ man sax damay daal di daw. <laughs> gaa yee dem ci reportage yi ba daw noonu. Mm-hmm. en parlant d'Ousmane Sonko li indi problème bi moo nekk mbirum massage yi dem massé wu am na droit massé wu. wala mm-hmm. amul droit massé loolu yàllaa xam nañu nañu bàyyi gaa ñi wax ci. waaye problème mu salon de massage yi mm-hmm. loolu tamit faaw ñu soulever ko mm-hmm. waxtaan ci kuy ubbi salon de massage lu muy demee naka la salon de massage di demee naka la massage euh, war a demee ñan ñoo war a maase ñan ñoo war a def yooyu yëpp loolu c'est ça a été le travail de la charmante bàjjen moo leen defal gëstu boobu bàjjen on va directement rek nga wax ci mbirum massage yi yeegaañu ñu xam bu ko defee ku seetaan bla bla bës bi ba pare. Mhm. dina xam bu yaramam di ruux wala ay ndiggam di métti wala ay euh, yëfam di di di di xaw a nagam <laughs> dina xam fan la koy bës lu jee <laughs> wax ñu ci mbirum bës lu gi yow bàjjan. <laughs> waaw man fi may commencer rek mooy pour nga ubbi salon massage tamit euh, faw nga xam. yenn yi ba pare. Mhm. mooy di nga diplômé. Mhm. di nga am matériel yi. Mhm. ba pare di nga am autorisation bi. parce que léegi dem jamono dafa doy waar. da ngay gis koo xamante ni dafay dem ubbi. benn fennam rek daañu la mën damay masser. no non non pour avoir un salon de massage. l'emplacement doit être bon. sûr de bonne réputation et propice propice à la relaxation. il devrait y avoir aussi salle d'accueil. Mm-hmm. dina am salle d'accueil. dafa war am salle d'accueil. Mm-hmm. aussi il devrait y avoir des toilettes propres. toilettes ba pare séparer. Mm-hmm. des client masculins et singuliers. ah ok salle de massage jigéen ak góor fa ñuy ne warta bokk. toilettes yi dañ ko war a. dafa war a set. ba pare dañoo war a. séparer. ñii góor ñi fii jigéen ñi. dëgg parce que am na jigéen ñoo xamante ne tey su leen góor laalee la leen mën na fa xew. gis naa ay images yoo xamante ne nii. ñoom ñi maase dañuy sol seen i tenue liggéeykaay da ñëw. wax ak. Mhm. ki nga war a waxal ci accueil bi nga wax ak ñoom nga dem ñu maase la mais am na ñoo xamante ne nii dañu ubbi seen benn kër wala ñu ubbi seen benn cantine naa ne ñoom dañuy maase sol loo xamante ne nii su ñëwee dara mun na fa xew exemple suñ jëlee kaa Ousmane Sonko li ko dala wax ci bari ak yooyu am na ñoo am na euh, ñoo xamante ne nii dañuy ubbi salon mais xamuñu différents types de massage yi ñoom dañuy maase rek ba tëdd dugg na fi dugg na fi benn madame is jóge fee noonu damay maase da nga war a xam fi ngay dem fan la est-ce que fi may dem wóor na est-ce que fi may dem diplômé na est-ce que fi may dem tamit agrément c'est ça parce que am na salon de massage yoo xamante ne nii dañuy def salon de massage plus mhm. dañuy yokk loo xam ne bokku ci mhm. ñoom duñu dem fenn seen kër la ñuy toog mhm. ba soo ñëwee mun na dara defe xew am na ñoo xam ne tamit dañu ubbi seen salon de massage yoo xam ne dañuy euh, comment je encore dañ naan salon de massage laa tijji fekk na ay prostituées ñoo fa nekk comprendre dañuy jaay seen bopp mais dañ koy mbubboo parce que mënatoo xàmmee salon de massage bi baax ak salon de massage bi bon mhm. parce que ñëpp dañuy jël rek daaj dëbb ci gën a gi mhm. yow doo xam fan ngay dem doo xam fan nga dul dem mhm. parce que yii dafa baax yii baaxul ñi nga xamante ni baaxul nag ñoo war a arrêté ñuy def parce que yow mi nga xamante ni yow yaay clientèle bi yow yaa fay dem da war a xam ne daal ne ah man kat fii ma jëm nii ak nii ak nii la mel parce que am na massage les différents types de massage am na massage corps à corps am na massage sportif am na massage tonifiant massage relaxant mm. am na massage yoo xam ne sa jabar mën na la ko defaraat mm. jarul ngay dem fenn mm-hmm. mais am na loo xamante ni c'est professionnel ñoom dañ ko jàng bokkul ak benn madame x bi nga xam ne dafa ñëw ubbi salon rek non non man damay maase mm-hmm. kii daf ko jàng mm-hmm. comme euh, kiné kinésithérapie kinésithérapie uh-huh. ñoom c'est agrémenté par la loi. Mm-hmm. dañu am salon massage yoo xam ne dafa baax. Mm-hmm. ñoom da ngay dem ñu maase la. nga wax li nga soxla. Mm-hmm. ñu defaral li nga bëgg après nga ñibbi. bokk li nga xamante ne nii massage plus la. dañ ci yokk loo xam ne bokk ci. maanaam da ngay fay après soo paree da ngay dóor wala ñuy càggatu. wala tëdd wala def lu leen neex. loolu tamit dafa. rajaxe dëkk bi. rajaxe na dëkk mais mais à chaque fois. Mhm. parce que li ñuy wax balaa ngay am li li bàjjan wax léegi bu dee dégg naa ko bu baax bu dee yéen ñiy seetaan tamit dégg ngeen ko bu baax. o vous mhm. rappelle que yen a ngi euh, suivre Blabla Buzz vous êtes sur Sénégal 7 euh, ñu ngi gis commentaires yi vous êtes en direct sur YouTube ak euh, Facebook yëpp bu ma déggee lu bàjjen wax bu baax mooy lu ne balaa nga ciy dugg. dëkk dafa war a am yoon. te dafa war a am li nga xam ne ay loi yi nga xam ne moo ko war a régir. booy dugg ci lenn man fi toogay mu neex ma rek ma am sama benn financement wala sama 2 million ma ne dama ciy dem ubbi salle de massage loolu war nañ ko seetlu. waaye am na tamit problème yoo xam ne ñii gàmm ak ñii raas déem bokkuñu. waaw ah, li li waa ji doon wax am na ñi nga xam ne métier booy xeeb. am na koo xam ne fa lay fajee suturaam am na ki nga xamante ne dafa jàngi ji jàngi médecine jàngi yépp ba def euh, massage boobu noonu wala mu def ko module ba mu leer ko ne lii nii daf ci am ay diplôme am mhm. buñ ci naree seetaan ku mu neex nar ubbi moom tamit benn wàlla ba ñu nar ci dem euh, yàq ci deru nit ñi mhm. wala bu ñu nee massage rek nit ñi xalaat euh, lu bon yaakaar naa ne mhm. kii yaa loolu nit ñi war nañ cee jóg taxaw waaw parce que Vito dañu war a indi loi boo xamante ne képp ko ubbi massage te amoo amoo euh, amoo ay këyit. salon de massage salon de massage te amoo ay mhm. këyit. Mhm. Mhm. ñu jël ko tëj ci. dëgg la c'est parce que dafa bëri ñoo xamante ne dañuy xëy rek jël seen appartement de. jël seeni ay xarit. maanaam dañuy cagatu déguisé. man samay wax duma ko nëbb. jël ko dëkk fa ku ku ñëw nga ne da ngay message fekk ne yaa ngi def leneen de plus lu raw message. ngir yàlla war a sóor yi nañuy xool di mhm. saytu salon de massage yi ñiy mhm. liggéey ñi ngi liggéey nag mhm. mais ñiy foo ñi ngi foo parce que nit ku nekk sa yaram am nga droit mu metti yow Vito tey am nga droit yow nga def ah, émission nga sollu ah nga dem ñu defal la massage ah, mais man comme problème bi am bañ a amat ah, man je préfère léegi salon de massage yëpp góor ñi dañuy massé góor ñi jigéen ñi massé jigéen ñi góor ñi ca góor ña jigéen ñi ca jigéen ña waaye waaye euh, dafa am ñeen ñi nga xam ne bàjjan may ma dafa am uh-huh. ñeen ñi nga xam ne dafa feebar dañoo feebar uh-huh. comme am na ñi nga xam ne bu ñu feebaree dañ leen di digal ñu dem ci kiné uh-huh. kinésithérapeute pour mu masser leen seen partie yaram mais dafa fekk loolu ki kay def xam ko parce que boo amee ay problème mu nerf loolu risque de yi wala jëlee ci benn feebar boo demee di jël sa yaram bi di ko jox keneen parce que ku ne xam na nerf nu mu fragile di ngay ko jox koo xam ne moom bës ko bës boo xam ne lafañ nga ciy jëlee. dëgg la de ñu ci yàlla mhm. musal. Mhm. kii euh, bàjjen dafa wax. waaw parce que comme li kii yaa wax. Mhm. góor ñi ca góor ñi jigéen ñi ci jigéen ñi. da ngay gis comme parce que nee nañ sooy am euh, salon de massage. il faut nga am droit bi. am matériel yi. xam nga li ma am papier yi. ba pare nga am nga xam ne ma jaw man maa ngi nii am naa papier am naa droit am naa ne exemple. mais am na ñoo xam ne dañuy am seen salon. bu baax di liggéey am seen papier ak seen lépp mais après da gis. ñaari madame X wala mademoiselle X. Hmm. jóge fee. Hmm. daal di ci salon bi chef ngi càggatu wala ñi ngi def leneen loo xam ne. ci biir lu doy waar. Hmm. ba yàqal borom salon jël ñi am diplôme parce que massage nekkul ne boutique yi moo a bu baax voilà c' est ça. c' tamit. donc moom newul fenn. ba pare bi doo man dama contre tamit nga ubbi sa salon de massage sa biir kër say doom xale yu ndaw yi ñëpp ñëw ngay dugal di génne non non yaag say njaboot fi ngeen nekk mënul faa massager ay nit mais génnal gis na nga dem ubbi sa benn cabinet wala sa benn cantine wala sa benn place. waaw parce que loolu koy waral mooy. boo amul moyen. Mhm. nga jël ñaari kër engagé wu. Mhm. di nga jël sa kër def ko salon de massage. Mhm. say doom di gis ñuy dugg ak génn xamuñu dugg ak génn. xamuñu gis moom lay moom lay kii ñu ko ni ñu ko tuddee. massage moom ni ñu ko tuddee maase. fu am sutura rek la war a doon. dëgg la waaw doonul fi nga xam ne n'importe qui n'importe kii wala ku mu neex dugg wala ku mu neex génn gis nañ sax dem nañ ba réew mi léegi kilifa yi mag ñi euh, dañuy dem te réew mi dañoo ne réew moo xam ne kenn suturaalaatul sa morom. Mm-hmm. dëgg la ku xam. président Ousmane Sonko leer na ko ba mu fa doon dem bu xamoon ne lii dina ko ci fekk yaakaar naa ne du fa dem waaye dañoo ne réew moo xam ne ku ne mu ngi yàkkamti wuññi sutura moromam ku ne mu ngi mm-hmm. yàkkamti ne kiyaa mu ngi def lii wala bàjjen mu ngi gisee kii ci suuf pour nga siwal ko ñëpp xam mm-hmm. te yaakaar naa ne yooyu yu yu yu yu jara moytu la moo tax kilifa yu bëri kii ah, dañuy au ñu génn ñoom dem ci salle de massage dañuy jël masseurs yi ñu ñëw di leen fekk ci seen biir. Mmh, ma ne. Mmh. man xanaa xaw ma problème amee dama ne. Mmh. pourquoi pas Ousmane Sonko. woowul ki koy massé mu ñëw biir këram man. dëgg la parce que gis nga nit ko la fekk sa kër. dëgg bu waxee fi mu toll nii yaa ko tooñ ndax sa kër la la fekk. dëgg la donc te képp kuy liggéey. bépp liggéey am na déplacement. dëgg la am na. donc kon waroon nga mën a déplacé wu. ñëw maase ko. mais tamit Vito des fois tamit salon de massage yoo xamante ne personnel bi bëriwul. Mhm. du ñu mën di déplacé wu. di fa mhm. bàyyi clientèle yi fa nekk. dëgg la tu comprends. kon nit ñi war a ko ñu war a correct rek. mais kon xam nga ñëpp correct. ñëpp correct. ñëpp correct. ñëpp bu ñu correcté rek réew mi neex. waaye bu ñu nekkee ci réew moo xam ne xawinte sutura. Hmm. diw def na lii diw def na lii. c'est grave de ay du yem ci bopp borom. te fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na ko. te tey imagine toi rek. fi bu jëloon ay millions. Hmm. may ko kenn. Hmm. kenn du ci bind kenn du ci wax. dëgg la mais ay bu fi toogay laaloon benn xale nii ci ci ci. <laughs> di nga siiw ne Fatou Yacouba Sarr ah. lii ne <laughs> ah, ci réew mi. ah waaw man gisuma lii <laughs> man damaa jaaxle. waaw waxal neex li nga waxoon li nga wax léegi. lan laa wax nga ne Vito muy def lan. ma ni tey. Uh-huh. bu fi yoroon ay milliards. réew mi nag dañoo dañoo sensible ci affaire yor ay milliards. Uh-huh. di def lu baax. Uh-huh. kenn du ko dugal kenn du ko titré. mais bu Vito kay xëyoon rek jël baaraam te ko fenn. non dina dégg njaajaan njaay. ah kon yàlla nañu yàlla. fii moom dafa doy waar. yàlla nañu yàlla musal ci njaajaan njaay ko allahumma amiin euh, li ñu bëggoon wax ci actualité bi yaakaar naa ne tey ku seetaan lii di nga xam bu baax a baax euh, Ousmane Sonko. le président Ousmane Sonko son profil fan la juddoo fan la yaroo fan la màggee fan la jaar mhm. kañ la créé parti am waaye ku seetaan li tamit di nga xam naka la ñoo nees def ba créé salle de massage mhm. ak tamit fan la ñu a dem massé mhm. sa yaram parce que yaram c'est quelque chose de sacré boo koy joxee yaakaar naa ne war nga xam fan nga koy joxewee hmm. boo koy teg ci ay loxo yaakaar naa di nga xam tamit yan loxo nga koy teg te boo leen gisee sama kër bi ñu ngi wax Saint-Valentin tey mooy le treize demain spécial Saint-Valentin sur Sénégal 7 hmm. on vous plateau bu inédit ñu ànd ci ak ay sponsors yu inédit encore hmm. man dinaa ne ci plateau bi yéen a ma Mhm. maa leen di représenté foofu. dëgg neexul te ma ma toj fa ba ma dëbb ko ba mbokk. baadu ba ba ma ko dem. <laughs> bu ma jógee yow da nga may jox euh, veste. Mhm. kii jox ma chemise. Mhm. ma jël tubéy. dal yi waari yi jox ma ko ma sañse ko dem ci plateau waa jeex na jeex na tàkk. du noonu. jeex na di ko ma parler juste benn euh, laps <laughs> benn laps de temps ci euh, Saint-Valentin bi. Saint-Valentin la ñuy waxtaanee. léegi benn histoire d'amour ku ne danga may nettali sa histoire d'amour bu bu taf taf lañ koy def nag fat fat amul yaakam bi wala xoolal ku ne daf may wax ñaari son wala ñaari chanson d'amour yu la gën a marqué ñaari chanson d'amour benn yow ban moo la gën a marqué bàjjen. Assane bu. Hmm? Assane bu ban. Saint-Valentin ban la ci. ñu naan valentin wóyal wóyal boobu daal marqué na ma. Badiane wóyul say valeur ay déedéet Assane boobu mënuma woy woyam. Hmm. waaw dama koy déglu nag. souvent hmm. dafa neex. Hmm. bi ñuy jar ñu ko boobu dafa neex. waaw c'est Valentin c'est Valentin. <laughs> boobu boobu ah, <laughs> fait way Viviane boobu. nga xamante ne moom lay way. dara maa ngi wax waxi mbëggeel rek sa rongo taa Kia. ah pardon. <laughs> Kia bëgg nga waxi mbëggeel demal Kia. ah bon sama Viviane bi nga xam ne mooy bi muy way. dara dàqul nga wéreeg sa xol ci nekk affaire yooyu. voilà dara dàqul. moom naan dara dàqul nga wéet ak sa xol ci nekk. mu la raay di la nga koy xool sa xol di beeg. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. non non comme ni ma ko bëgg. sama préférence la. man nag xam nga Viviane bi mooy fi ma toll ci yow. su ma la doon jéem a wax nii ma la bëggee. du ko mës mën a bëgg comprendre loolu moom mën na maa rey fi ma toll ci yow waaye Youssou Ndour lang ku ne langal ak sa waay. waaw dafa neex. <laughs> waxi mbëggeel bi ma gën a neex nag man ci àdduna. Mhm. li nga xam ne benn yoon laa ko dégg te dootuma ko déggati. ci Youssou Ndour laa ko déggee. macha allah bi Youssou Ndour di woy ku ne langal ak sa waay ba ci yàgg mu ne. ah wuy sama waay bu neexee. bu méttee sama waay rek ngay doon. ah loo sëriñ Momar ma ca ndaam mënatumaa dégg waxi mbëggeel bu gën a foor waxi mbëggeel boobu la léegi nag ñuy histoire d'amour une histoire d'amour waaw waaw da ngay gaaw euh, bi ma nekkee collège mhm. suñu waa classe suñu mosoon wàcc dañ dañ daan dem géej. Mhm. léegi nag ñu yor paas. Mhm. comprendre nga mais élèves yi des fois dañuy nëbbante suñu biir. Mhm. mais dañu koy ragal a wax ay lettres la ñuy bindante ak yooyu nag. comprendre nga après man dama la def affaire dof rek. mais sama problème mooy dama doon ñaan cent franc. cent franc ma sonal damay topp mbedd géej gi di ñaan cent franc di ñaan cent franc. temps yii ma amoon copain bind ay lettres. ndeysaan copain bi nag suñu toogee classe duñu wax. mais suñu wàccee dañuy bindante ay feuilles am kuy ñëw di yóbbu di yóbbu <laughs> ma wàcc gis garabu fleur yi rafet yu rose yi. ma dem jël ci benn ndeysaan na ma ko koy jox mais xoolal su ma nekk ba jub ko rek dugalaat ko. <laughs> yaa bëggoon def déclaration d' amour non yaa ko la yàgg naa ko yàgg naa ko ma génn. vraiment nii man moom. Euh, leen lu may fàttali xam nga nag ba may jàng moom dama ësoon lu ne laa doon dugg. Mhm. donc. <laughs> Abdou maa ngi nekkoon troisième. Mhm. ñoom ñu nekk ci euh, benn classe bi. Mhm. mais xale bu góor bi maanaam mu ngi nekk sama copain ci école bi. Euh. moom ki mboq classe aussi copinam la. maanaam ñun ñaar lañ. léegi nag ñun xam nañ ni que ñun ñaar ñëpp waa ji daf ñuy doxaan. te ñu ngi nekk ay xale. ñuy rivaliser te. léegi suñu génnee man damay ànd ak sama groupe moom mu ànd ak groupe am ñu fekkante fi ñuy ndekkee di buuxante. <laughs> léegi benn jour ma bind lettre envoyé jox ko xale bu wér bi moom tamit. ba xale bu góor bi lii lay lettre bi xam nga ko teg mu sàcc ko. Mm. léegi nag ñu woote réunion man moom ak xale bu bi ci kaw <laughs> terrasse terrasse école bi léegi ñu ñëw commencé expliqué que xale bu góor bi ne yéen ñëpp laa bëgg. Eh. léegi da ngeen di xool rek noo leen lijjantee wàcc baa ñu fa. Eh. ñu songoo xeex. <laughs> lu ma xee eh. ku ne sa parent léegi nag man lu may wax sama yaay. xam nga ko <laughs> ma sama yaay ñëwoon nga wuy si. Mm-hmm. sama yaay nag du wuy si du wuy si lan nga def affaire après euh, loolu par la suite ma ni man xaaral ma bàyyi Fronte école ci laa bàyyi nag Fronte école mais mu nekkoon loo xam ne daf ma métti woon mm-hmm. ah beneen bi si moom dañ ma jàppoon may farantu eh, eh. moom maa ngi am 15 ans <laughs> sama yaay bett ma ci terrasse may farantu hmm. mu gàddu yatun di mooy griyoo yati ngandee hmm. jiital ma ci mbedd bi weeru yàlla du ma du ma génn ndeysaan c'est ça on parle d'amour te yaakaar naa ne waa ji li muy wax anglais li muy wax mu ne God is love Dieu a est l'amour a mm-hmm. est amour mooy loolu ñëpp mbëggee lañu man <laughs> man nag li ma gën a marqué mooy ki ma kooku man moom ba tey waxaguma ko dama koo nob ah. yaakaar naa ne ba ma ko nobee nag jamono ya ma ko nobee sax yàgg <laughs> ba ma ba ma koy nob kaarak la dëkk am na mm-hmm. sama benn cousin Alaaji Mor Sow mm-hmm. dañu dama nob xale bi nopp ko xeetu nopp ko existé waaye bu ma rombee temps yi xale yi ay yéeg garab ay yéeg ci kaw. ñebe mooy xam ni bu génnee ci mbedd bi man du ma ñemee sax génn ci mbedd bi du ma ñemee ñu tajee ci mbedd bi parce que damay yaakaar ne su ma xoolee day xam ne sama koo noonu. c'est grave. bu ko nag ca kaw garab ba la ñuy yéeg. Mhm. ca kaw garab bu ñu yéegee seen buntu kër la ñuy ne am na benn garab ba ma newoon. di <laughs> yéeg ca kaw garab ga di ko xaar bu génn bu génnee balaa ñu xoolal mu ngi nii mu ngi nii. <laughs> voilà alal ma bu alal ma bu ne ma alal ma buy bay joxañ ma ne alal ma ma bu bul joxul bul joxul léegi. dama léegi wax nga dama léegi dama ko wax waxu ma ko ne dama koo bëgg. ba ko war a ko ko daa ko c'est ça on parle ñu ngi nii. de toute façon daal bëggante la Abdou doo ma dugalal Saint-Valentin bi tuuti ma wax ci sama yëf balaa ñuy jàll ci anniversaire yi di wax juste ne bëggeel euh, li Youssou doon wax ay coono la. ay mhm. sentiment la situation rek la. Mhm. waaye ki la bëgg. dafa jafe xam te dafa jafe gis. Mhm. boo gisee kenn ku la bëgg nga la waay jàppal te ñun xale yi li ñu nekkee léegi dañu yaakaar ne mbëggeel euh, foo la. wala lu neex kese la da ngay nekk ak nit. mu neex mu commencé naqari nga ni gàddu say dàll dem sa yoon. te du mhm. noonu nit ki boo leen àndee yaakaar naa li ñuy wax c'est pour le meilleur et le piir mhm. da nga koy muñal li gën a baax ci moom ba pare. bëggee ko li gën a bon ci moom li woykatu anglais bi naan your perfect imperfection mhm. mu ne ko man dama la bëgg ba sa ba sa imperfection yi sax ay perfection la ci sama kanam kon nga xam ne loolu mooy mbëggee nit ki nu mu ti mel ab doo ma dugalal benn photo Saint ah Abdou dugalal ma Saint-Valentin <laughs> ah, mu ngi nii ñu ngi nii parlons de ce de la Saint-Valentin ñu ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci buum wala ñu ngi bëggante Euh, yàlla may leen léegi ñu takk leen ci buum ñi nga xam ne ñu ngi ci buum tamit yàlla may leen ñu jubóob ña nga xamante ne ñoom la ñu nekkal. Mhm. te seytaane bàyyi leen seytaane yi nañu bàyyi nit ñi ñu seen mbëggeel. Mhm. diwa def lii diwa la def lii. Mhm. kii a bàjjen def lii wala kii a bàjjen wax na li wala diwa doon génn kii diw loolu seen yoon newu ci. nit bu nekkee mu bëgg bàyyee ko ko. bëggee ko noonu bàyyee ko ko. te ngeen civilisé seen civilisé bàyyi nit ñi dund seen mbëggeel yi. tax ngeen ba kenn mënatul a dund mbëggeel ci biir ak mbëggeel ni mu neexee nit ñi bëgg ko fooyee bëgg a yàq xolu nit ñi bëgg a su ba su ma meree ba dal seet kaw <laughs> yàlla baax na Abdou c'était juste benn crochet bi ñuy def ci Saint-Valentin dinañ ko yeggali tout à l'heure demain 14 février incha allah ci plateau bu spécial euh, ma nar ci ànd ak Thiat ak Mané mm-hmm. nar ci ànd ak invité Dieyla ak. Euh, Kan Diallo incha allah en direct sur Sénégal set on vous promet des très bons moments de télé Sénégal set Sénégal 7 la ku ñeme na nga taxaw. ku ragal na nga daw nag Sénégal 7 mu ngi ñëw. dal seen kaw dal seen kaw. Abdou anniversaire yi ñu jàll ci vite parce que tamit ñu dem tamit sans wax ci anniversaire yi. Mhm. ni photo yi dafay bëri tellement ba doo xam sax yow yan nga war a segg. wala yan nga war a dugal tellement que tout le monde. dafa bëgg ñëpp ciy gis seen bopp. te benn may ne benn nen la daal dañ koy maynees ku ne di ci jàppale. Mhm. a ci abd première photo fii c'est l'anniversaire de Serigne Mansour bu ndaw kii sama jarbaat la euh, Mamour bopp mooy baayam Adja mooy euh, yaayam ki ñu ko tuddee muy sama nijaay kon Serigne Mansour yàlla nga dund ba jël sa jikkoy turandoo. Mhm. yàlla may la tawféex may la wér gi yaram. Euh, nga dem ba teral sa say say waajur ay ca ñu dem ci keneen l'anniversaire de kii xaw ma nu mu tudd am bindoon naa ko Mbéri Diouf waaw ñu dem ci l' anniversaire de Mbéri Diouf de la part de Aline Badara Diakhaté depuis Kaarang mu ne ma souhaiteel ma Mbéri soxna su baax ci man la waaye Mbéri Aline Badara moo fi jaar mu ngi lay souhaiter un très bon anniversaire ñu ngi lay ñaanal gudd fan li nga bëgg sama àdduna yëpp yow yaa ko xam aussi yal na la ko borom bi defaral ñu jàll ci beneen Abdou ca l' de bii bosukan la. Kia. Kia <laughs> eh, kii nag c'est ma copine préférée. Hmm. Ndeye Menge borom Medina eh, maa ngi lay ñaanal ma copine nga dund nga wér nga happy je te souhaite du bonheur hmm. mbokkum yaayu Fathiam mbokkum yaayu Cheikh Fall maître Fall. Hmm. dundal lu bëree bëri bëri Ndeye Menge. joyeux anniversaire. waaw euh, joyeux anniversaire sama rakk sama xarit mbenn Jaxate mhm. borom Kajoor borom ay numaan baax lool yaru mhm. bëgg bàjjen macha allah yow loo dund doyul ma nekk yow ba aljana daal. ah ay waay Mbène <laughs> mii. <laughs> ay mbeer ay waay Vito xanaa li may wax di ko dugalal mbeer <laughs> boo ko tàggee ba pare dugalal mbeer lii nga xam ne damaa bëgg ibaadu si sama xol bi <laughs> noonu nga amee normal waaw ah, du mbeer du la si moom c'est bla bla buzz ñu ngi fii chaque samedi incha fii la ñuy dajee mm-hmm. bla bla buzz mu ngi noonu logo baa ngi nii bla bla buzz c'est pour yéen yéen a tax ñu defar ko yéen a tax incha allahu chaque samedi dinañu fi daje. lu mu mm-hmm. jar nag pour ngeen comprendre actualité yi dinañ leen ko defar bu soobee yàlla maa ngi nii je suis habillé par euh, Jamila Fashion numéro téléphone mu ngi 77 149 45 70 day jaay bépp xeetu habillement lépp li ngeen soxla ci habillement da koy jaay moom jaayul sax day maye parce que li nit ñi di jaaye 10 000 moom boo demee ci moom. prix bu mu la koy defal sax yow da lay jaaxal da nga naan dafa est-ce que dama koy may donc Jamila toute l'équipe de Blabla Buzz te remercie xale yu jigéen ñi nee nañ la jërëjëf a yaa solal seen góor. Mhm. waaye man it di nga xam ne solal nga <laughs> euh, ci yow yaa yaa yow yaay suñu jigéen plateau bi moom yaa ko moom <laughs> chaque jour nga xas ku la neex wax wax ku la neex lu la neex <laughs> ne dootuma ñëw. bàyyi naa bàyyi naa. <laughs> nga. éviter nga <laughs> Euh, merci beaucoup képp ko doon seetaan Blabla Buzz ñu ngi naan laan merci beaucoup naan nag à chaque fois ni day demee li ngeen soxla rek lañ leen di jox. népp mhm. lu ñu waxee nag euh, bu fekkee sofaan wala rek ñu ngi jéggalu mhm. juste que dañu koy def rek pour jox leen information yi ngeen soxla. Mhm. naan mille merci à vous te day leen aimer. day leen partager. ndax Blabla Buzz seen Blabla Buzz la. waaw yéen a ko moom. ñoo ko moom allah merci beaucoup. incha allah Kia non Badiane waaw ba samedi ak jàmm incha allah rabbi fii lay xewee mm-hmm. nii lay demee. Mm-hmm. macha allah ñoo ko yëngal daal. Mm-hmm. jeex na. bàjjen nuyoo gàtt na tàggoo gàtt na <laughs> bés sab rafet na. waaye tamit kenn du saba waaji ñambeeg maar gay waaye ñu ngi leen di jaajëfal ñun tamit di leen gërëm di am toujours contentement di jàkkaarloog yéen di wax parce que nee naa ne doon xale. wala doon sax nitu télé yombul surtout ngay jàng à chaque fois ngay wax ak ñi nga xamante ne ñoo la ëpp xam-xam fuuf mm-hmm. waaye yàlla baax na de leen ñu ñaanal rek c'est Sénégal 7 et c'est blabla buzz chaque samedi incha allah gardez la pêche cultivez la joie c'est Vito Gay pour vous servir et toute la team de blabla buzz on vous donne rendez-vous samedi incha allah bu leen kenn yàqal seen olala oh bu leen kenn yàqal seen olala oh bu leen kenn tëree dund muy mbëggeel que muy lenn jafe-jafe àdduna àdduna métti na yeewu amoo xaalis yeewu nit ñi wax la lii diw tuumaal na ma lii diw wax na la lii bu mu la teree dund dundu leen te ngeen civilisé na lépp civilisé civilisé leen ba gën samdi samedi ciao. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Sénégal 7. le roi de l'information.